asalaamaaleykum mbokki internet yi tey ne mooy Jax mu ñëw arène nationale léegi dañoo bëggoon a xam bii bi lan la ndax gis nañ ko ren def na ko quatre sorties mu tëgg li nga xam ne mooy lutte simple defagum nag quatre sorties manqué waat empreinte am li nga xam ne mooy lutte simple daaw daaw moom marqué na empreinte am daaw jéeg ren mu manqué empreinte am tamit Jax ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen bëggee. di kontaan ci bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ci làmb ji. di bëggee internet yëpp ñi leen di suivre. di leen nuyu di leen sant di kontaan ci seen i action waaw Jax lan bii bu ñëw tey sa ñëw bi ñaari but la bu njëkk bi sama doom nday duut ñaan sama ko sama ñu koy waxati sax ni ngeen ko tuddee yéen <laughs> sama coordonnateur uh-huh. moo moom moo war a yóbbu mise am déposer pour dimanche Adrien sengo alors dafa liggéey mënul mënul mënul rëcc ci liggéey bi il faut mu ñëw donc comme moom say mooy sama coordonnateur man maay coordonnateur am donc ma ñëw pour andil ko mise am fii CNG loolu moom premier objectif deuxième objectif mooy dama dégg gis muy ay preuve yu leer nañ que Iba Mar Diop ñu teree tëj ko ne dafa am accident miir ba dafa daanu ñu ngi fa organiser ngel fan yii mu fees dell ak nit te loolu du dëgg du yoon stade bu ñu ko tëjee ñëpp lañ ko tëjal ba job ba fa accident bi amee ñëpp la amal accident ñu tëj ko boobu ba léegi gisoo fa kenn def fa dara pourquoi ñuy ubbi Iba Mar Diop di ko jox ay ngel di ko xañ lamb loolu mooy ñaareel bi. waaw. tey da nga dem ba foofu fekk fa li nga xam ne moom mooy ngel bi wala la. man de ma fa image yaa ngi nii ay image laa yor yu leer nañ. nit ñi a ci biir naa la ko yónnee sa sa whatsapp boo buggee nga xool ko yónnee naa ko ñi ko ñi ko war a jot yëpp yónnee naa ko président CNG yónnee naa ko directeur administratif yónnee naa ko patron promoteur yu mag yëpp Gaston Mbengue Pa Abdou Fall et cetera ak yàlla ak ñi ko ñi ma yaakaar naa ñu ngi ci làmb léegi léegi bëgg mooy ñu ubbil ko ñëpp mënuñu ko tëjal kenn te ubbil ko keneen ñun ñëpp ay sénégalais lañu di fay suñuy droit di def li ñu war a def ñun ñuy employé ay jeunes yu dul jeex ngeel ngel employéwul kenn lu dul ñaari nit ñëw taxaw former seen fecc teg seen i sabar dugal seen xaalis seen poste dem ñun ay ay centaine de jeunes la ñuy organiser la ñuy la ñuy employé chaque jour ci événement yi ñuy def. ëpp ñuy. dem ci biir ministère man aw lu may wax ak Yankhoba Diattara bu doon ma bu doon euh, euh, suñu ancien ministre bi nu mu tuddati. Matar Ba Ba moo fi ne loolu du am. du xañ làmb di jox ay ngel. dadul dëgg. man je un appel au président de la république waxuma sax ak ñu ndaw ñii. ki nga xam ne mooy suñu président moo ñu jiite ñun ñëpp tëddee njaaxaanaay Sénégal Sénégal sénégalu ñëpp la te làmb du lu ndaw on a problème pour organiser fii yéen ñi ñëpp xam ngeen loolu promoteurs yi dañu bari dates yi matuñu ko. Iba Mar Diop moo doon suñu bouffée de soulagement nga xam ne bu buñ nga xam ne bouffée d'oxygène ñenn ñi mën a dem foofu ñenn ñëw fii accident bu ndaw boobu am foofu jar nañu tëj ko. jàllu ñu tëj ko parce que mur boobu ça a été très mal fait te du benn mur boobu acrotère yëpp a bon nañu liggéeyee boobu lañ liggéeyee yeneen yi amul fer amul chaînage ba ma ko nee nii ak sama loxo sax mu daanu dañ sant yàlla bu fa kenn deewul parce que kawewul alors mënuñu ko ubbil ngel di ko tëjal làmb jaaduwul. mais Jackson 11 millions li may wax moo ëpp gën a série ay 11 millions. le 13 incha allah c' est la semaine oh. le 13 incha allah di woo ñëpp Adrien Senghor bëgg ñu defal ñu deux catégories. deux catégories. laay ñaan wax naa ko CNG bind naa fi lettre déposé naa nañ ñu defal deux catégories trois catégories xajul gaal gi xale yi dañu war a bëre boo xoolee poids lourd yi keroog quarante quarante mbër ñoo fa nekkoon. Mm. loolu du gala. galaa day mat xale yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi toog di xaar mënuñoo bëri fen parce que amul dara nañ leen yi ñu bëri. est-ce que jotul yow tamit nga yokk mise bi wala ngeen yokk. du solution boo génnee 2 millions boo ci tegee dërëm rek 3 catégories la règlement bi ni ko defee moo baaxul dañu waroon ne mën nañ dem ba 2 millions 500 mille 2 catégories boo demee 3 millions ñu ne 3 catégories mais génnal 2 rek dem 3 booy compter da nga naan 1 2 mais doo def 1 rek dem 3 lañ ko defee moo baaxul bind naa leen lettre man lu may def dama koy bind bind naa leen lettre di leen ko laaj. ba léegi tontooguñ ma si nañ ñu may deux catégories parce que foo ñuy tëggee fa ñu am di ko tëggee trois xaju fa kenn gënu maa bëgg a tëgg tëgg trois catégories man musuma tëgg lu ndaw mais da def loo xam ne dafa xaj fa nga jëm boo fa defee trois catégories mu nekk cent cent cent vingt une mbër ak seen cumikaay ak seen àndandoo fan la nit ñi di toog terrain bi dafa am longueur mais amul largeur xajuñu fa nañ waxante dëgg rek nañ ñu may deux catégories bu dee deux millions cinq deux catégories baax na au moins ñu yokk ko bu jom xale yi nekk ci àll bi ñeent ñeent deux catégories léger yi mën nañu bokk ci mais du ñu toog rek di ko tëgal ay lourd ñu ñëw ay trente mbër ak treize mbër a ndangaan ak et cetera et am ndangaan keroog treize mais dafa rafetul. mooy li Yékini di wax rek mbër yi aussi da leen di tegal xaalis te kenn xamul ñu bëgg kenn xamul luñ bëgg amateur yi ñëw di seetaan mbër yaa ngi ni tegal nga leen xaalis kenn génnul sa promotion bi nga xam ne mu ngi daw ci Liss Ndiago Ardo fu mu toll. commencé guma loolu talaguma ne dafa am heure Liss Ndiago Ardo le 22 janvier la. Ah. voilà jarul përëx përëx yi. ña ca ne ak ñi ci war a dugal bu ci yàlla defee ñëpp mat. loolu day na promotion li ci war yëpp danañ ko def mais du heure bi la ñuy ratatati di wax am na làmb yu ñu fi jiitu Gaston Mbengue fi ñëw premier janvier bii ngi nii euh, juin euh, euh, novembre 6 novembre ay ngandi làmb la da ngay ratatati ñoom di xeex ak ñoom pour lan promotion lay lu ne dafa am heure ak minute ak seconde julli sax dafa am heure heure bii su ma leen allahu akbar allahu akbar ñu ne eh tisbaar jotewul yamal maa ngi leen di nuyu di leen sant leen bëggee. jërëjëf jaa ngeen jëf.